رضيت بالله رب جرجف جرجف سيسي بسم الله بسم الله الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام سيدي وخينا يعني لله وإنا إليه راجعون جبتي أه، اسمي خمنا أه، باتنا ينيب بكتي سنغال موي جمعك أه، شيخ باب مالك سي بطول ديون خمنا كان لكي بانكي إريومي nekk ponk ci diine ji nekk tim ponk ci tariqa bi waaye nekk ponk tim ràññeeku ci eh, xadrat al malikiya muy tiwaawoon ñu ngi wax inna lillahi wa inna ci demam yi nga xam ne dëgg-dëgg bett na ñëpp man léegi rek bi ma koy eh, gis ci réseau yi lay tombeeg tim alxalifa Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima Niass mm. di ñu oo pour ñu ko muy xamale rek ne eh, mbetteel la waaye perte la boo xam ne ñun ñëpp ñoo ko bokk diine ji ñoo ko ñàkk. dëgg la ko ñàkk. Hmm. muy nit ku baax muy nit ku ku oyof muy nit ku modeste koo xam ne ku ànd ak euh, jamono bi la. Hmm. ci lépp lu baax. Hmm. Euh, ndax man xam naa ci jokkoom dëgg-dëgg boo xam ne mu ngi bàyyi mébét boo xam ne mu ngi ko amoon. pour ñëw Medina pour euh, ziare magam. am uh, soppeem muy ci Ahmed Tidiane mm. Ibrahim Niass mm. kon xamee ne demaale na éene boobu nga xam ne lenn rek la ci éene yu baax yi nga xam ne mu ngi ko amoon pour jokkale mbokk gi mm-hmm. jokkale famille bi xam nañ ko mu nekk nit koo xam ne tim mu tawaadee la uh, ku woyofal boppam mm. ñu ngi koy jaale askan bi yëpp waaye ñu ngi koy jaale uh, xalifa Tiwaawan di ko jaale Medina di ko jaale mbooleem euh, këri diine yi ndax ñëpp ñoo ko ñàkk mhm. di ko jaale Sénégal ñaan yàlla yàlla dëkkale kook euh, way dawe mi xiw dëkkale kook yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla ak yéena ñi damm damm bi la yàlla na ko yàlla jàng amiin damm la ci barab boo xam ne xam nañ ne barab bi min na am ku baax waxtu wu nekk ci barab bi ku baax mhm. yàlla na utal ci barabam lu gën yàlla eh, yërëm ko eh, yàlla tuuti ko ci njaboot gi yàlla bu mu bàyyi fitna yàlla bu mu ko fekk ci kanamam yal na yàlla yool ñu ci musibaam ñun ñëpp amiin yaa rasulillah jërëjëf Cissé yàlla yàlla yàggal taxawaay gi yow it jërëjëf raditu billahi rabb